lépp fukki at a ngi nii muy jaar ci couloir yi ñu tabb ko président groupe parlementaire bu majorité ci assemblée nationale ñu fekk ko fii ci bureau am ak équipe am ñuy rangé waat. travail bi déjà tàmbali na depuis dañu war a valoriser le travail du parlementaire c'est-à-dire le député. Mhm. nit ñi xamuñu lu muy def quoi. tout ça. mu wax ñu nag amul vie privée. mes enfants ne sont pas des enfants politiques. des enfants qui doivent avoir une lu ko soxal rek mooy politique. moi je lis beaucoup les hommes te ci biir politique bi ay référence am barewuñu kenn rek la ci am muy président Macky Sall. maa ko tànnal sama bopp mu nekk sama kilifa te ba mu nekkee sama kilifa ak léegi aussi lépp loo xamante ni xalaat naa ne lii kat war naa ko mën a def dinaa ci waxtaan moom moom it am na yéene ci man. moo ne moo ko joxee ndombal tànk. yu politique ak yu institution depuis 2012 muy teewal askan wi ci biir assemblée nationale. nga xam lan mooy état xam lan mooy fonctionner état parce que budget rek bu Sénégal ñu indil la ko jox la yëpp budget bi nga xool xam saytu xool nan lay doxee daf lay permettre nga xam réew mi yëpp pratiquement nu muy doxee. te de lu mu gis tey ak lu muy dund wute na torop ak lu mu yaroo. pour man ragal yëpp yàlla la ñun yàlla daf ñu jox teraanga bi nga xamante nii. def nañu ay doomu aadama ñu tudd doomu aadama yi rek ñooy jiite. ci jaar-jaaram ak lu muy gisee politique tey jii muy jiite député majorité bi yëpp. dinaa def sama kéem kattan. te ñëw wante kenn rek moo ko waral. muy papaam. moom moom euh, yar ci dignité ngor ak teraanga loolu la ma yore te ba léegi nii day continuer di ma ñaanal di ma jox ay conseil parce que nit moom euh, sa baay mooy sa lépp. mu ne moo ko jox confiance. nañu continuer am suñu dignité ba pare di wax dëgg. muy fàtte yenn yi di dëgmal li ci kanamam. aujourd'hui suñu liggéey mooy liggéey pour que Amadou Ba bi nga xam ne mooy suñu candidat di candidat Benno Bokk Yaakaar ñu def suñu kéem kapaan ba mu gañ ay aventure tey jii mu am ñeent fukki at ak juróom-ñaar lu ko gën a tiis rek mooy li xewoon décembre 2022 bu ñuy installé député yi ci quatorzième législature bi. ñaawlu naa ko rafet rafetlu ma ko jàpp naa ne lu gàkkal. li nga xamante ni mooy démocratie Sénégal ak gàkkal li nga xamante ni mooy fonctionnement assemblée loolu wax naa ci. mu nekk lu mu dul fàtte. loo xamante ni du jug ci boppam wante du yàq dara. lu nga xamante ni moom lu la di ko dundee. je suis un